bokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di jëfe ndigalu sëriñ ab Abdou mii nga xam ne moom la sëriñ Abo doon taxawaloo liggéey bi di ko jottalil itam ay kàddu yoo xam ne dafa bàyyikoo ci sëriñ Abo mi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh yónnee woon ci moom bëggoon mu jàppale ko ci tool yi muy liggéeyu ngóob mi sëriñ Cheikh Abdou nee na <clears throat> ci kàddu sëriñ Abo li muy njëkk a def mooy sant sëriñ Cheikh mi nga xam ne euh, bokkoon na ko te yëg na ko te jàpp na ko ndax bokkoo ak yëg ak jàpp moo tax mu dem ba am loo xam ne yaakaar na ne war na caa mën jàpp mu ñëw yëgal ko ko ngir mu jàpp ca mu jàpp ci itam ci yaari mbir ndax jàpp na ci ngir bokk gi waaye nag jàpp na ci ngir sëñ Tuubaa gi ndax borom gaawaan ak sëriñ bi seenug bokk euh, lu jaxasoo loo xam ne kenn nattaliwu ko waaye googee li muy jaxasoo jaxasoo goog sëriñ aboo ak sëriñ Cheikh itam mel na noona mbaa nuru na ko waaye itam la borom gaawan jàppoon rek la sëñ Abo jàpp muy sëñ Tubaa ji ba tax na bi mu ko yëgalee eh, liggéey bi ab sëriñ képp ku koy yëgal ab liggéey jortu nga mbooloo mu topp ci ginnaawam tey li nga xam ne ñoo ñooy cheikh yi nga xam ne ñoo toppoon boroom gaawaan li ci ëpp mbaa ñëpp ñu ngi ànd ak sëriñ Abo ci liggéeyub sëñ Tubaa bi moom it bi mu jógee li mu jox ko sëriñ Cheikh Abdou mi mu ne kon na woo mbooleem ko aju ci kër gi ak mépp mbokk ngoo xam ne ñoo bokk Daaru Salaam mu woo leen ñu jàppale ko ci liggéey bi sëriñ Cheikh Abdou nag di seere bokk yëpp ci kàddu sëriñ Abo nee na mbooleem bokk yi lay njëkkee bokk yi mu bokkal sëñ Modou Mamoun ñëpp kenn ku ne ñëw na jàppale ko ci liggéey bi ci la nga man di ko seere itam mbooleem taalib yi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ Modou Mamoun jaar ko ci seen bunt di sëñ Abo ak ku yaakaar Cheikh di Moustapha ñoom ñëpp itam bàyyi nañ lañ jàppoon ñëw jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi yàlla dogal na kawe na njort ci yegg gi tool yi néewut waaye mbooloo mi dafa bari ba tax na liggéey bi wax dëgg yàlla bu fekkoon ne mbooloo mi bariwut na war a bare mbaa wuy si wuñ nañ war a wuusee kon mën naa yàgg lool waaye mbooloo mi wuy nañ dëgg bi ñëwee tam an nañu ak Pastef pëstéef bi ñu àndal itam tax na liggéey bi rafet na ni mu ko ni mu war a rafete kon cant yi day tàmbale sëñ Cheikh mi nga xam ne yéene ni taalibe yi euh, liggéeyal sëñ Touba wax ko sëñ Abo sëñ Abo nga koy sant ci loolu di sëñ Abo itam di sant sëñ euh, taalibe yi ci yéene jooju ak yaakaar jooju nga xam ne sëñ Cheikh amoon na ko ci moom ba yónnee ci moom ñoom ñëpp ñu wuy si defal ko ko ni mu ko bëggee mi ngi sant taalibe yooyu bu baax a baax euh, kaddu yi nag sëñ Cheikh Abdou mii moom la ko sëñ Abo doon taxawuloo moom itam nu mu defoon noonu nekk ci kanamam doon ko taxawul liggéey bi waaye taalib yi ñoom ñëpp kenn ku ne la mu war a def def na ko ci ak jàpp ak wuy si akuk taxawu kon cant moom mënta weesu cant sëñ Abo daal day sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem tàmbalee ko ci ki nga xam ne yéene na taalib yi aw yiw ba woo leen waaye nag sant itam taalib yi nga xam ne wuy si nañ ko wuy si goo xam ne foogoon na ne duñ ko wuy see noonu ndax jamono ji xat na te bari na yitte waaye wóor na ko ne tey moom sëñ tubaa ñor na leen ñor gu leen sëñ tubaa ñor na tax na moom bi ñu ko waxee ndigal li rek mu jox ko sëñ Cheikh Abdou mu woo mbooleem kër yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñoom ñëpp ñëw nañ ah, sëñ bi wër na dal yëpp yewi leen xanaa lim bi day tax doo doo mën a doo mën a matal ñëpp waaye waa sëñ Baara Touré ñëwoon na di waa Madina ak waa kër sëñ Ibrahima Dia waa kër sëñ Mun Jaay Jóob ak waa kër sëñ eh, Njaga Sila sëñ Njaga Sila eh, imaam ñëwoon na ak waa njàppandal ñëpp daal ñëwoon nañ ñu aju ci kër gi kenn desul ku ñëw itam sa mbooloo nga àndaloon ba ñu liggéey liggéey bi niñ ko war a liggéeyee ba àgg ci yewi gi bi mi ngi sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbali waaye am fu mu yem di sant itam yéen ñi nga xam ne ah, bu liggéey bi tasaaroo ci réew mi ak bitim réew ba kenn ku ne dégg ko la ca war mu def ko ci muy taskati xibaar yi yéen itam mi ngi leen sant seen cantuk bopp ndax eh, eh, dañu wax ne reeteen mënut a war a jaan waaye mën na ko wane bañ rey ko mm, yëg yëgle gi biñ ko yëgee liñ njëkk def mooy nañ ko yëgle yëgle itam mënisul nit ku ne nga jàpp ko di ci yónnee nit da koy def ci yëglekaay yi rek ñu ñu ñu jàpp ci ci yëglekaay yi itam dañuy am pastef ci loo xam ne daa jëm ci sëriñ bi rawatina Daaru Salaam kon sëñ Cheikh Amar yéen ñi fi teew ak sëñ Fallou Ndiaye ak sëñ euh, sëñ Fallou Silla ànd ak sëñ Fallou Gala Silla mi ci seen seen kaddu sëñ baa ngi leen di jottali loo mboolem taskati xibaar yi nga xam ne jàppoon nañ ci seenug cant ñoom itam di ñaan suñu borom gën a euh, yëkkati seenub liggéey te gën leen a taxaw te taw tawfeexi sëñ Tuubaa jiñ ciy séentu ngeen tàbbi ci biir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.